pàkk wàllum entraînement état de forme euh, Abou Ndiassé lépp li nga xamante ne am na fi rek leen ko dëgtal ci Wassare Lamb di leen dox dig daje ci kanam léegi-léegi ambiance na fi am bàkk dina fi am lépp dinañ leen koy dëgtal ci Wassare Lamb ba ci kanam léegi-léegi aboo ngi noonu di ñëw Lamine ìtọ́wọ́dé mama yọkọ̀ àjòmé ìjọkọ̀ jìlọ sẹ́gun ọgbà kù Lamine. ìtọ́wọ́dé mama yọkọ̀ àjòmé ìjọkọ̀ jìlọ sẹ́gun ọgbà kù Lamine. ìlàjì kanjú kẹ́síkà mọ̀kànjá àtẹ̀wọ̀n máa ègò láà. ba pare ba pare waxal presse bi doo ko bàq moo gën a civilisé mais la def li muy def ba pare ba pare waxoon presse bi presse bi am image yu leer mën na ko baax. face Adam Ndeye. ci loone maa ngi nii rek ñaax solo. bu gis tey Abou Ndiassé def open press nga teew. non xam nga naan ragal bi a xam ne wërsëg ñaar daf féetee ak man day sama xarit sama doom nday tey suñ suñ nekkuloon fi dama génnoon ma jaar fi wallaahi léegi laa si waaw ñaar da koy ñaanal ndam moom ñëpp la seqal jàmm ñëpp la amal jàmm Baye Fall koy mu wootee dafa dafa moom wallaahi amul benn problème. mais léegi kenn gisu la fan nga toll. maa ngi sama maay sama bopp boo ma gisaan ne maay sama ma sax tëlu ma sax ay wax waaw pare naa gars yi ñu ci man mais gars yi doon doon naa dégg sax combat fan la toll sama combat ci nag ñoo ngi ci ñan ak ñan la lay wax non ñu wax ñëpp man pare naa pour ñëpp waaw ñëpp laa pare pour bëreel Zouz waxal ak ndax xam nañ ne naa ne gëj nañ la gis gëj ngaa feeñ déggoonum la damay war a ñu andi lu bees damay dégg damay war a ñu andi lu bees du yàgg sax léegi nga dégg dara incha allah booy maa leen man fuuf xam na jaam nag day nangu ndogal dama dama tawroon ñëpp xam na loolu mais man xam nga dama war a ñëw stade bii ba mu fees dell amul yu ma war a liggéey bu baax ñëw taxaw noonu la def mais ñam jaay pexe yàlla do nam daal ba combat bi taxaw rek moo naat sama bopp incha allah. kontaan naa retour ñëw incha julli ci yeneen bi di sant samay ñaari waajur bu baax di santaat samay ñaari waajur ma fa jógee damay sant Serigne Sidi Mbacke alxuraan muy sama wasila maa ngi koy santaat encore. di santaat samay gaayan avant tout voilà ma sant kenn damay sant samay gaayan damay sant samay gaayan di sant samay mbokk samay gaayan ndax boobu ba léegi lekkuñu naanuñu taluñu dara ndax combat bi mais nañ jàpp luñ ko fonk maa lañ ko gën a fonk ñoom xam nañ loolu xam man nag pare naa parce que yaakaar naa ne boobu gisee ñu teel a def lii sax dañ ko bëgg a teel def pour mën a toog consolante wu suñu bu baax. combat bi nag combat bu ma fonk la. waaw. yaa ko wax nga ne combat bi combat bu fonk boo fonk la lan ma waral nga fonk combat bi. waaw parce que wax ji moo si bëri rek. lu ñuy wax. non li ñuy wax. bu la 21 ñoom ñëpp dinañ jàpp seen gémmiñ si kàttanu yàlla. ñooñu lan lay wax li ñuy wax. waaw damay gars yi chaque jour am na day ñëw ba samay tànk di jooy di wax. Uh-huh. man leen Pape Ndoye wax ji bàyyi leen ko rek làmb ji na wax li muy wax rek bañ tëj si biir dina xam ndax am man jàmbaar laa wala du ma jàmbaar. Uh-huh. waaw si kanam. yaag moom kan moo gën a doon jàmbaar. moo xam nga instant bi wax di waxaat sax instant bi man pour man mu ngi bëgg a soof ndax mënuñu fi def signature ñëwul. waaw xam nga après bu fi nekkee di wax day dem ba après li ngay wax su du am sens. Uh-huh. xam nga li ma la wax li ngay wax li tax du am sens parce que ñëwul mais yàgg yàgg dinañ daje instant parce que xaalisu jàmbur la lekk. Uh-huh. waaw kon moom dina ñëw. yaa xam te wu ko de maa ko gën a soxla fop balaa muy xam ne maa ko gën a soxla ci kàttanu yàlla arbitre ne pur génn suñu jigéen ñi. yaa gën a soxla combat bi. fuuf. waajaale nga loolu yëpp. dégg nga li ma man xam naa ne li ma daj moom daju ko ci kàttanu yàlla man xam naa loolu wóor na Serigne Sidi Mbacke. waaw daj du ko daj. du ko daj. mënu ko daj. nga ne nga duggoon Fass. nga duggoon Fass. waaw na ma ubbi woon combat bi amee wu noonu nga delluwaat bi. waaw xam nga am nañ ndam combat boobu xam man la man dama ci wax. parce que tamit làmb gisee nañ bàyyi loolu. kuy bëree te taxawul kooku làmb la am naa ci ndam. waaw. ku xam Pape Ndoye xam na day xeex. est-ce que di nga xeex ak Pape Ndoye. man pare naa pour lépp. est-ce que di nga xeex ak Pape Ndoye laa. waaw yow yow Cheikh yi nga wax ne réew mi def sax. wóor pare entraînement war a jàkkaarloo suñu morom nga ci nekk xeex ak. làmb bëri tóor la. ku doon simple kon duñ wax ay waxu dóor waaw yow man may góor yàlla jàmbaar may woyoon ba day soxal. dara bés bu xew. ñëpp la. am nga si ñaar bu baax. waaw xam nga. dara. xam nga di ko wax mu ngi jaay bés bi ak ñu fekk ñu joxe nafs yi suñ ko am jom. jàpp daal bi seen jàkkaarloo bi nga ñëw ñëw amuloo ci li nga bëgg. waaw parce que dafa waroon ñëw ñu gën a jaay bés bi parce que promoteur bi xaalis bi te ndaw la comme ñun xam nga ma di daan dooleel di woo inspection yi nañ ñoom jàppale. waaw promoteur bi parce que ñoom ñooy génnee seen xaalis di ko def ci ndaw te lamb moo fi nekk koñ boo dem am na. xam nga li ma wax. kon président sax ñu ngi mu gën a jàppale làmb parce que ñun làmb la ñu am mooy suñu sport national. waaw di woowaat sponsor yi na ñëw jàppale promoteurs yi. fàll fàll xam nga xam nga xam nga combat bi lan lay représenté ci sa carrière. bu baax parce que combat yi li ma si gën a neex maa ngi ñu bëri nañu jàpp ni Pandoy moom moo fi loolu moo ma si neex. waaw te loolu bu at bi subee dinañ am na xam moom moo fi lépp loolu. maanaam li ñu jël lépp jox ko loolu da nga ko waajaale. pare naa pour lépp parce que làmb la moom ah. waaw di woo nag ñëpp ñi mu mën a jàppale maa ngi fàllu may jàppale bu baax fàllu fàllu kundul fàllu kundul fàllu Baye Karim balla mu si jàpp ni et moom xam ñoom yu baris xam nga bu ma limee damay di woo jàmbaar di woo lamsaar xam nga li ma la wax jàmm gën Fora Fass Mbao Wakhinane Guy Lëpp Samsam Sicap Mbao La Rochette Thiaroye Géej waa Gambie waa xam mbay waa Thiaroye Géej man mooy bëri fu nekk na ci di maa ngi woo ñëpp nag si ak yer ak tege di woo grand di woo Gambie moom ñëpp fa lañ pare te buñ fa pare si kàttan yàlla borom bi dafa ndam waaw waaw maa ngi sant waa Gambie sant Cheikh Diouf di sant musa Gambia di sant Pade di sant Aliou sama boy di sant booy Modou bu law bu Gambi. waaw. amul ñaata kase. MC MC. da nga jël combat boo si nii muy combat bu rëy combat capital di lamb yoo xam si nii Sénégal ñoo ngi koy sa diggante ak Pape Ndoye Pape Ndoye jël favori bi jox Pape Ndoye ne moo est-ce que xeex boobu nga xam ne si ne ñëpp a ngi koy xaar sa diggante ak Pape Ndoye parce que dëggal nga sa bopp ba fas yéenee ba ngaa rab Pape Ndoye. lenn daal naa leen ko wax lenn naa leen ko wax. yàlla ko yàlla defal jàmm defal ma jàmm kenn bañ a am dara lu leen génn suñu diggante. est-ce que yaa ngi sóoraale say daan parce que mën na la woo ci kaw ñëw si suuf. bu ñëwee sax day daanu si kattanu yàlla. yaa ngi koy woo ñu teew rek jaana yi. aussi pare pour tout aussi pare pour tout. kuy diriger kuy diriger. incha allah dañuy daje rek mais man PAM dooy mu ma. am rek maanaam doo arrière benn tànk. loolu tollaguñ ci du ma koy arrière PAM dooy war bi ne prix dañuy daje. si ah. kattanu yàlla. kontaan nañ ci yow. woote damay woote nag damay woote. di woo ñu ma war a jàppale maa ngi sant sama mag yi di sant Diop ak jëkkëram. Ousmane Ndaw maa ngi koy woo si combat bi. maa ngi woo ku si mën a jàpp nga ñëw jàpp di woo autorité yi Omar Bao. di woo Omar Bao Junior. Sidi Ndaw di woo Sidi Ndaw. xam nga di woo ñëpp di woo ñambe di woo gars yi dañu maa ngi jàppe daam ñoo nga jàpp si combat bi maa ngi woote di woo leena di woo mbay di woo ñoom ñëpp ñu di woo ñëpp ku ma mën a jàppale maa ma mën a jàppale maa ngi lay woo lamsaar ñoom bis seen bis la xamal li ma la fa diggee di santaat sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacke ndax moom laa am mooy sama wéeruwaay mooy sama mbégte mooy sama bànneex di ko ñaanal borom bi yokki leeram maanaam taaj ko bi mu yàgg fi lool ndax yàgg fi suñu njëriñ la ndax ndeysaan dimbali nañu bëri dafaraat di woo Fora bi woo laaj Fara sama jàmbaar bi sama grand bi maa ngi woo ñëpp daal ku ma mën a jàppale maa ngi lay woo ku ma mën a jàppale maa ngi lay woo samay gaayan awma seen fay muy jàmm gën di lamsaar di fépp di sant sama booy pelay bi maa ngi sant ñëpp parce que lépp ñoom la avant kenn di ma jàppale ñoom ñooy jóg di def kon man samay gaayan samay mbokk maa leen sant bu baax sant sama doom bàyyi di sant ñëpp ma jubee damay jub ay wax ama di sant san waay maa ngi